liggéeyal diine faratala ci ñépp ñu ci ànd ak yéen ba tey ci tomb bi ñu toll di ko waxtaane muy bor ñëw na jóge ci abi hurayra radiyallahu mu nekk kenn ci ndongo yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan ànd ak moom sësoon ko rëkk waaye sax nekk koo xam ne la mu mokkal ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ay hadis kenn mokkalu ko ndax mokkaloon na 5374 hadis ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy abdurrahman ibnu saxra dawsi ñu gën koy dàkkantale ci abi hurayra nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooñ doon jàngal hadis yonent bi nee na nafsul muallaqa bi daynihi xatta yuqda anhu rawahu tirmisi ki yàlla yónni woon ci ñu nee na bakkanu doomu aadama day dañ koo gàll dañ ko aj ci borom laa ilaha illa doomu aadama bi bu génnee àdduna feek ay borom fayuñu ko fekk ay borom mbokkam yi taxawuñu ful pour fay ko bakkanam dañ ko aj ci bor bi kañ lañ koy ajji bu ñu fayee bor bi laa ilaha illallah waay mbokk yi mbokk yi bor doy na waar yenent bi alayhi salaatu wasalaam wax na beneen xadis ci xadisu sawbaan radiyallahu anhu nee na yonent bi alayhi salaatu nee na man maata wa bari min soloso daxalal janna yonent bi nee na ñett ngi nii ku faatu yóbbaale woo ko yonent bi nee na da ngay dugg aljanna ñetti mbir a ngi nii man maata wa huwa bari un min salaasin képp koo xam ne faatu nga yóbbaale woo ñett yii yonent bi nee na kooku daxalal janna dina dugg aljanna yooyu ba ca jiitu mooy alkibru rëy ku dee yóbbaale rëy doo dugg aljanna ku dee sa bàmmeel rëy yeggu fa di nga dugg aljanna wal xulu ak ëppël ci jamu yàlla jël keneen def ko yàlla jël keneen teg ko ci kaw yonent bi jël alquran suufeel ko suufeel lislaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam àdduna ne ku ci loolu doo dugg aljanna wa dayn ak bor ku dee fekk yaa ngi yóbbaale bor yonent bi nee doo dugg aljanna allahu akbar ñetti mbir ñàng gi ñu ñàng ak garaw gi garaaw ku ko deewaale yonent bi nee doo dugg aljanna ah mbokk yi mbokk yi mbokk yi lu ngeen xam ci ko yonent bi ne du dugg aljanna yonent bi xool benn waay ne kii du dugg aljanna ñu ne kan mu ne ku deewaale ñetti mbir ku deewaale rëy ku deewaale ëppal ku deewaale bor yonent bi nee na du dugg aljanna waaye ku dee yóbbaale woo ñett yonent bi nee na day dugg aljanna hadis boobu al imaamu tirmizi moo nu ko nettali kon doomu ndey mbokk yi mu nekk mbir mu doy waar ñu war a góorgóorlu sunu dund bañu ñu moytandiku bor lañ cey dugal na nekk lu metti lool lu tar lool lu lekk jafe-jafe lool waaye nañu tere nelaw nañu tere lekk nañu tere naan ba bañ koy fay ndax yóbbaale bor musiba la ci biir bàmmeel waaye musiba la ëllëg su doomu aadama dekkee ci kanamu borom bi tabaraka wa taala yal na nu yàlla sàmm leen sàmm sàmm leen yal yàlla aar yal na nu yàlla taxaw yal na nu yàlla teg ci siraatal mustaqim yal na nu yàlla subhaanahu wa taala wallu ci àdduna wallu ñu àllaaxira yal nañu yàlla musal ci bor ñu ngi leen di ziyaara di leen baalu àq gis nañu liggéey yàlla bi liggéey lislaam bi liggéey daara ji ni ngeen ci taxawee góor ak jigéen mag ak ndaw biir réew bitim réew fu ngeen mën a toll yéen a ngi yónnee seen alal ndax rek xam ne ci liggéey lislaam la jëm wallahi yal na yàlla fay leen ko yal na yàlla fay leen ko yal na yàlla fay leen ko yal na yàlla barkeelal leen li des jazakumullahu xayran assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu